kon gars ñu dellu si voilà ma technicien dañ doon bëgg a tester benn affaire affaire bi ñu doon bëgg a tester nag jàllul kon nag ñu dellu si Barthélemy Diaz nee naa leen c'est la victoire de la dignité du courage de la ténacité et de la loyauté en toutes circonstances looloy dëgg ku mu neex ku mu naqadi looloy dëgg Barthélemy da nga koy bañ mbaa bëgg ko waaye tey jii ku janoog Barthélemy xam góor piir nga janoog ndax nag lii dëgg ba nekk dëgg mooy fu ne dëkkal nañ ko fa lu ne waxal nañ ko Barthélemy Dias Il est violent, il est belliqueux, d'affaires, un homme violent ne sera jamais maire de, maire, maire de Dakar. Ratatatatat, mais ni boy, il qui a radio. Faya. Alors, diaboliser. Lu dañuy wax ko nous, ñom à la place des Dakarois nous, ñoy choisir à la place des Dakarois ñoom ñooy choisir mais Dakarois yi ku nekk yor sa carte yor nga yor sa làmmiñ mu mel ni égaat ci bool ngay ratatatatat way kii dafa réew dafa violent du fal Dakarois yi na pat ba le 23 moom campagne nag bu mag pour diaboliser Barthélémy Dias duñu xaar lu dul mu ubbi gémmiñam pour wax ñu seppi ci lenn mettre ko en épingle c'est pourquoi j'ai compris jour bu mu voté ba pare jour bu mu voté ba pare mu ne pat gaay gaay gaay gaay euh génn journaliste yi bëgg a jël réaction mu ne pat après mu présenter excuse am mais wóor na ma ne parce que mas nañ ko dafay ragal sax wax parce que ci biir émission bi ñu def mi ngi wax ne jour bi muy def conférence de presse euh, jour stafla jour bi muy def meeting mi ngi toog ak Ousmane Sonko mi ngi koy wax ne ko ah Ousmane xoolal xamal li ngay wax de ndax nag fi moom loo fi wax gars yi jël ko mettre ko en épingle ah loolu moo ko dem ba ragarloo amaana mënoon na génn ci bureau bi wax na nous devons faire face hein, nous interpellons le ministère de l'Intérieur léegi nous bindal ko Barthélemy Dias mi menace euh, Antoine de pré-campagne def def deux semaines de campagne mais ben incident lañ le dégg Ben incident lañ le dégg moi bi am ak njaboot gi ñooñu alors alors incident boobu rek lañ la déggal ak la ca xew yépp boo bég biñ la ko déggalee lañ ko porté en épingle fii la ci képp porté ko en épingle rien que pour détruire yàlla yàlla mooy moo yor fal mooy dugal ci xolu nit ñi nit mu dugg fa ana ñi den wax ne Dakar waaye duñ fal ku violent boobu ba léegi ñu ngi muuma kenn ubbiwul sa gémmiñ wax kenn sañu ta wax sañu ta wax boobu ba léegi xanaa war nañoo ndaw tey de lekk sa ginaar sa monsieur ba sa xal fex na nga toog def waaye ba li bi di mais seul le peuple est te nag li ci doy waar gis nga les grandes gueules là yi dañ wax yépp di tam dëmm Barthélemy Diaz xam nga ñoom duñu contre ñu kenn faruñu kenn te maa lay wax fii ne ñooñu léegi nga gis leen ñu raam comme ay lézard ay sëndax dugg ji fi nga xam ne moo di euh, ca mairie ba Barthélemy kay xale bu yaru la parce xam nañ leen comment ils vivent xam nañ leen nan la ñuy dundee xam nañ leen seen melokaan ay chauve suur sax leen tane éthique ay personnalité yu mag yoo xam ne ñu ngi doon sàkku ci ñoom ñu woote jàmm ñu ngi doon sàkku ci ñoom ak dal ñu ngi doon sàkku ci ñoom xam nga lan ñuy wax loo xam ne day defal xol yi waaye ñu gis ci ñoom lan par parloo ñenn ci taxaw bay wax Barthélemy du falu dafa soxor dafa violent ana ñu tey ña nga ne pat gis nga ñi àndoon ak Barthélemy gëm ko di ko xeex léegi ñooñu ñoo leen xatal ci Barthélemy xoolal li ma la wax rek mais loolu bu amee génn leen baari sans jaas yi ñu dem xeeb ñoo fal Barthélemy Diaz sans Diaz yi <laughs> sans Diaz yi ñoo fal Barthélemy Diaz sans Diaz yi ñoo fal Barthélemy Diaz dix-neuf communes d'arrondissement yi bu ñu ko xoolee yépp boo deful ndànk Barthélemy Diaz fépp la leen làbbali ba ñu nooy nekk léegi nag Barthélemy wax nga ban jox la maire Dakar am nga ndono lu rëy waaye dégg naa la nga ne sa victoire bi yaa ngi koy dëjee Khalifa Ababacar Sall waaw xam naa ci lu leer na dox na ci wax na ci lu ne daj na ko ci waaw xam naa ci leer na benn guddi ma soxla woon ko ko woo eh, mu rappelé may 1 une heure du matin 1 heure et demie dama proximité la jóge proximité la jóge mais khalifa maké dafa samp plein nga samp sa plein maké Sall mo la toroxal sa mandat bi nga amone ci mairie de Dakar sosal la lu dara amul 1 milliard 300 la wax nga détourner ay ñoñam ñi ci 12 milliards de détournement ci société nationale yi mu samp mbeureum nga samp sa mbeureum Ndakaaro yi fe feral la say rongañ mu nekkoon ne rongañ am na kon Barthélemy juumoo nga dédé ba nga ba nga feral na say rongañ Macky Sall moo samp Diouf Sarr nga samp Barthélemy ñu léewtoo ne woon naa leen fii samedi sëgg bëre dimanche bañ sëggee bëre balaa 16 heures xam nañ ko gañe kon liggéeyee des nag bat avec rigueur wan sénégalais na tempérament bi ñuy wax ci yow dafa fekk na nekk góor dëgg nit pire tu n'es pas hypocrite li xalaat danga koy wax mu soo wor doo workat tu es courageux pour défendre le Sénégal Ablaye Wade ba léegi xamul Bart nee naa leen kuy xeex Bart ngay woo mu xeex la la kon jii bu amee ndam bi tu le mérite loo ma waxoon Pape Alé gis ngeen gis ngeen vidéo boobu mu ne Pape Alé dimanche dina dóor Macky Sall dóor yu métti yoo xam ne ma ree boobu lu bare xamoon nañ ko na pat lu bare bare bare bare xam wax naa leen fii samedi ne leen dañoo nekkoon ñoom ci campagne ñun ñu nekkoon ci beneen liggéey lu bari ñu xamoon pat Abdoulaye Diouf sar un homme correct courtois poli je te jure un homme correct courtois poli parce que nit nag da nga koy seetal comme li nga xam ci moom man ma Abdoulaye Diouf sar maa ngi ko xam 2012 avant 2012 ba ñu wut mais ba ko Macky joxee kudd Abdoulaye Diouf sar jour boobu nomination di génn première émission ba mu def man la ko def ak décryptage 2S ma xam ko ci courtoisie ci correction billahi wallahi taala looluy deug nit dang koy seddal jikkoom d'ailleurs sax doko ko sax ci ay wax yu déplacer wala yooyu 2014 ba Khalifa Sall di leen làbbali ñoom ñëpp fii taxaw ndakaaru moom rek moo fi sono woon la résistance à Yoff fàtte xaju fi ah aussi fàtte xaju fi fàtte xaju fi moom rek moo fi sono woon la résistance en direct boobu maa ngi deux heures laa ko jël ma jël ko en direct 2S li ma ko wax var fi image yaa dama vous êtes la le seul responsable de paire qui a résisté à la vague déferlante comme ni yewi def rek da taxaw Ndakaaru vraiment vous êtes courageux vous avez du mérite mais xama lola loola lola loola rey Diouf Sarr naagu ku naagu daagu ku daagu ñu romb la wacc la fa auto glorification deg na la nga dem bané nga né yof boy nelaw sax boy nelaw sax dal lay yé jël na la abdoulaye kay tok yow yof xalé bu am 34 ans mo la fa gagné 34 ans xalé bu ndaw un mois avant un mois avant manala wax nañ mané man attention à ce gosse qui a à Yoff man Ça ma un mois avant sama benn xarit picco ñaa bu nekk France moo xam mu vous m'avez envoyé un mois avant Nema, pap Alain, mon nom, ne ne je dina dina ba ma ne ko nga ne mënuma suivre li ma lay wax ci biir nag ñuy xool di xool di xool ba xam ñun ci biir campagne bi ay yi ay instrument de sondage yi nga xam ne dañ ko doon utiliser di jaay di joyanteeg yooyu xam ne Diouf Sarr waxuma la mairie Dakar sax mais Yoff da koy perte ñu wër la Diouf Sarr Diouf Sarr problème kii Diouf Sarr lii xaa xamoon ne Diouf Sarr dinaa la benn affaire am na nit ñoo xam ne maa la koy waatal ci alxuraan fiñ toll ci réewum Sénégal ni leen sénégalais yi suuree ni leen sénégalais yi jéppee ni leen sénégalais yi xeebee bëgg ñu génn dans le jeu politique bëgg ñu tëj seen làmmiñ ci luy xew Sénégal nit ñooñu bés bu ñu tuddee say mbir rek sénégalais yi dañuy radicaliser wu pour gën la sanctionner te yàlla mi ma tiim xam naa ne am na nit ñoo xam ne soxla leen woon mënoon nga def sa campagne duñ tudd sel duñ tudd su duñ tudd li nga xam ne moom moo moo moo moo xew tudd sa campagne dara voilà am na nit ñoo xam ne maa lay waatal ci alxuraan ne fii ni leen sénégalais yi suuree guddi yuñ toll ni leen Sénégal yi jéppee guddi yuñ toll même boo nekkee nit ku baax buñ waxee seen mbir di la faral rek sénégalais yi comme jéppi nañ ñooñu dañ lay gën a sanctionner radicaliser wu loolu moo la dal am na nit ñoo xam ne soxla woon leen woon ci campagne bi nga war a dawal na nga ba gañ a def porte à porte yu bari ñu lay tëj dajante naa ko cortège oto yi kër kër kër mu ne waaw li mom sa booba gaay yaangi proximité rek say gox dakar ay dank fanaanal rax ci dolli xaliss bi nga duggal ci presse bi <laughs> ay la famille gis bima len yone sank xaram ma joxat len benen Eh, damay reba ta sang dama ko doon lire ñu lay defal ay tit nga xaju bari nga duggal ko ci presse bi ñu lay defal ay ngandit tit may retan billahi may re mané no oh juuf sa ni ngi lay door ngandit tit ana mo lan la la mu melni juuf sa rek mo nek ci campagne bi juuf sa code de populaire Diouf Sar déjà maître de la rue Diouf Sar lan respire la confiance Diouf Sar lan déjà maire averti Bart. <laughs> Diouf Sar déjà maire averti Bart. les sondages placent Diouf Sar en tête ak beneen benn mu journaux yi léegi Diouf Sar quotidien la tudd man may xol di re rek ma ne ñii xamuñu xamuñu ban heure a jot même journaux yoy tay suma la liir lu la prend le pouvoir ma ne dañ koy do mais dañ koy do door yi metti metti damay titre mais damay ré mon histoire avec les femmes Diouf lan Abdoulaye au pas de charge mané non mané non ñi heure jot mais xara Marais, on sondage place Dioufsar en tête. Mais comment on sondage pour placer Dioufsar en tête te Dioufsar a amul sax moi qui sax nas. lu bari la comment on sondage pour te placer en tête <laughs> di le dóor di lo. nice, nice, sa photo yi photoshop ko ngay Mais ça me, ça me faisait rire. La force tranquille, Diouf Sarr, la force tranquille. dama doon lee dama doon ree man ba may gis lii ma ne non grand bi gars yi koy dóor loolu moo indi lan moo indi tey ji Yoff bi nga xam ne sax da ko gañe woon dañ la fi nga yaakaaroon dañ la fa bàcc xalé bu ndaw 34 ans le plus jeune maire dan la fa bacc cooñaa dama doom bay moom ko wax depuis Paris un mois avant mu ma doom bay ma ko nam mu ne maa ngi lay yone dossier boy bi suis ça journaux di ratatat di wax rek oui un sondage place du sar en tête ma ne leen au pas de charge du sar ah un week-end avec Diouf Sarr ma amul une boo xam ne doo ci gis Diouf Sarr Diouf Sarr Diouf Sarr Barthélemy Dias moom buñ ko dëgalee à la une du journal rek mooy ñu ngi koy jéem a jaxaseeg askan bi ñu ngi koy jéem a jaxaseeg nit ñi rek chaque jour boo gis Diouf Sarr demande qu'on vote qu'on nique charte pour la non violence qu'on signe moom boo amee na dem signer mais keneen bu bëggul signé da ko bàyyi mu bañ a signé léegi nag di nga xam ne àdduna di noonu ñu ñëw ci beneen ponk boo xam ne foog naa mooy la presse et le peuple sénégalais c'est un problème un très gros problème la presse et le peuple sénégalais pendant quatorze jours de campagne maa ngi daan waxtaan ak sama benn mag bu nekk CNRA ma ne ko quatorze jours de campagne presse écrite comme télévision certaines télévisions peut-être il y que pour kan Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bennoo bokk yaakaar rek ngay dégg bennoo bokk yaakaar tey bu nekkul Zahra Iyane Thiam suba Mamadou Dione ñoom rek ngay gis tàntante ni mel ni tulleeg maay ñu takar naa jënd temps d'antenne ñu leen di defal ay titre pompe ronflant Et titre le pompe, yu oui ça, en marche régulier ñun ak suñu presse bi même presse même presse bi nga xamné lu ne euh, bon mu y a eu la razia. le grand séisme un autre vent souffle déroute capitale de Benno Yakar à Dakar Guédiouaï. L'ouragan Yéwi emporte tout sur son passage. Alerte au troisième mandat. La déroute. <laughs> Sale fin de Biden. Le naufrage de Benno Yakar, Dakar danse le jazz. Soumani, Soumani, Soumani électoral. ñaareel wax. te bañ koy wax fii. newoon naa leen samedi ba lundi ban sëgg bëre bu nekkee ne li ngeen wax c'est sincère en vous dinañ xam parce que nag band cëfër cëfër band ngandanool band cerveau ko mën bandi cerveau moo ko mën fuuf li ma sama benn grand di wax le mort est décédé ma ne ko nuy loolu bu dama booy le mort est décédé ma ne ko ah loolu grand titre nous yépp nous caporaliser toute la presse au service de Benno Boko Yaka au service du camp présidentiel au service des candidats de Benno Bokk Yakar waaye yewi askan wala candidat yewi askan bi dañ leen ñi mosal xam nga dañuy teg dil dama lay wax nag xamu ñun xam nañ affaire presse comment ça se passe gis nga boo jëlee journal bi nii lii lañuy wax le ventre du journal oreille gauche oreille droite ah ñii ñu teg parallèle nga xool fii la ñuy dugal le Diaz

balaa 19 heures xam nañ ne Barthélémy Dias lem na Ndakaaru bay dóor paccaangaam xam nga nag li ci gën a neex mooy sénégalais yi dañoo comprendre la presse dañoo comprendre la presse ba sonnatuñ ci amaana sax jëndatuñ journaux amaana à peine gis ni télé <laughs> la preuve hier la télévision qui a été la télévision la plus suivie était Walfadjri ils ont fait un travail exceptionnel à tout point de vue remarquable Moustapha la presse qui a abattu un travail professionnel exceptionnel Walfadjri boo ko waxee dañoo contre non contre jëlal résultat yëpp parce que sénégalais yi dofuñ boo xooloon ci live yi télé yi Walf ma nga woon ci six mille personnes yu ko doon xool ci ci ci Facebook wala YouTube nga dem ñeneen yi passé wun mille te ku ci yegg jàmbaar nga am ne tele boo xam ne sax cent soixante cinq laa ko gis <laughs> dama mujjëree otam bravo à mes confrères de Walfadjri vous avez abattu un boo xam ne kenn mënu leen ci sikk liggéey bu rafet ngeen def bu mucc ayib gis nga ba nga ba presse bi di tëll tëll di wax dama daan ree xam nga la daan ree ma ne sénégalais yi dañuy ree ne leen non ñii comprendre ñun bàyyi ba suba suba ñoom ñëpp dinañ dellu si waat wala ñoom ñëpp dinañ weddi seen bopp ñoom ñëpp dinañ weddi seen bopp xam nga loolu ban jàngat nga ci wax on a beau caporaliser toute la presse sénégalaise laa la wax au bout du compte, ça peut servir à absolument rien du tout. Parce que am télé yoo xam ne mel ni télé buñ ko changé woon def ci télé APR kenn du wax kenn du miin parce que beige marron rek fa doon génn té nek li ma seetlu defe naa ñafa fa ña fa rangale di génn kenn defe na moo fa gañe li ma wax samedi mooy dëgg te kenn mënu ko dindi ñun journalistes yi la presse faluñu kenn mënuñoo fal kenn il faut que ça soit clair faluñu kenn te mënuñoo fal kenn il faut que mu leer suñu bopp la presse faluñu kenn te mënuñoo fal kenn faluñu kenn mënuñoo fal kenn nañu bàyyi di dox ci maayinu nit ñi daa tey ji Diouf Sarr li ko daroon yépp ci ay quotidien anañu béy ba ma wotee ba pare la ma gis mu ànd ci ay journaliste ak yooyu béy bu derk la fii Cheikh Gueye ñëw pichnet bal bi ci kaw romb ko di dem seul peuple est souverain té nak sénégalais comme xam nañ ne légui y a trop de manipulation au niveau de la presse la majeure partie ko ci wax mu ne man damay xaar mu xol replay bi wala réseaux sociaux yi la koy dem kan parce que à temps réel à temps réel parce que xolal man dama doon xol famille gaay di joxe rak tak tak tak tak bébé yi lu xew ci tot ñu jot à temps réel rawati nak bu sénégalais dem ba xamé né yeen vous ne faites plus de l'information mais de la propagande déguisée non graw pour le camp du pouvoir camp pouvoir li ngeen duggal ci alal ci presse bo leen ko defone proximité amana man ngeen am dara ah. amana manon nga am dara tay presse bi ngeen caporaliser yépp lan la leen servir dara lu jël yu métti tax sénégalais yi gën leen a jëpp gën leen bañ na sanctionné baa yaa ngi fiix rek rax ci doole nag bu demee ba remarqué au niveau de la presse ne yamatuñ ci propagande pour le camp du pouvoir mais dañuy def li nga xam ne Mon moyen manipulation pour yac le camp adverse le camp adverse bachara Lune lu ne son koy wax Sonko buñ ko defee à la une rek Moi, dafa y a des voleurs ou je n'aime pas les préfets rek nous commençons les préfets les administrations, territoriales, administration territoriale il a bien précisé ça a beaucoup de defee ce pour montrer qu'il est violent qu'il euh, aime la violence tey TD. Euh, déséquilibre boobu sénégalais yi xool gis Moi, il indi sax des fois nit ñi radicaliser il faut leur administrer une leçon comme avons des groupe def di def lu leen on verra nous sommes ñun suñu classe bi on nous ñu ne non graw nañ dawal rek ñu ñuy néewal doole ñëpp ñu jàpp Cheikh le Messi Bamba Fall Rasul ñoo defal ko affaire Messi sax tojatul fenn léegi tojatul Paris Saint-Germain xanaa ba mu euh, Barcelone mais il a du mal à intégrer. Pierre Bal le Bamba na ok petit pont réglé nga ñëw Cheikh Gueye il n'a même pas battu campagne parce que tellement da nga foog ne Cheikh Gueye duñ duñ ko mëdd frère Farba Ngom nekk fa Bey euh, Abdou Abdou c'est-à-dire Bey nekk fa te da nga gis sax gis nga ba ñuy joxe tendance yi tu sens nettement groupe yi ni ñuy poussé ah da ngay kenn na ah Messi de tendance yi moom moom la jox mu nekk P ah, Messi ay tendance waaw waaw victoire bi fii la gën a xeeñ ah bon d'accord ok nga gis ñuy joxe ay tendance loolu xam nga lan la jur un sentiment de révolte des sénégalais billaay wallaay taal léegi lañ mën a nettali candidat yew yi gën a Kër Massar niñ dañ campagne rek leen di yërëm dara yoruñu ko ñuy campagne ku nekk nag jubali Medina parce que lan Cheikh Ba mooy directeur caisse dépôt consignation yor na xaalis te wax naa leen fii man maa leen ko wax am na nit ñoo xam ne seen làmmiñ balaa la fu ñu dugg tooke lañ fay indi ñu commencé Cheikh Ba Cheikh Ba Ba Gaye ñu waay defal ko bagaas teg ko ne fii laa leen ko waxoon fii rédaction bi booy na ma eh mais grand mën na leen billaay xamuñu Bamba Fall élection du xaalis Sénégal duñ ay bàyyi ma ba leen di jëndee xaalis Sénégalais yi xam ne xaalis boobu ngeen di indi si ñoom da ngeen ko sàcc looluy dëgg da ngeen sàcc xaalis boobu. xaalis boobu lew leen liggéeyu leen ko ñàqu leen ko donnu leen ko fenn ana la sëriñ de yëmbal Amadou ot anam fu ne ot ot ot ot ba baaragee na ma kar na ma garaaw man de dañ ma dañ ma dañ ma takk jaal néewal ma doole ma ne ko garaawul yàlla rek a fi nekk keneen newu fi kaay toog ñoo ñu def émission pour au moins xam lim liggéey pas kelulucan. lolo jadu ot ot ot ot muy xep xaliss ba rek ñu ne ginnaw suba defe lañuy dem euh euh campagne mu yóbbu 100 millions gars yi sukuram sukkuraam jébbalu daf ko serigne yembal serigne yembal naa koy doga a dégg booy bi na ko garaawul man du ma sëriñ de man booy disco booy laay ànd xam yëmbal bu baax nag dëkkuma Eden Rock dëkkuma Almadi fii laa dëkk di fi yeewoo am bilan nag bu war a défendre am bilan bi ma war a défendre ñëw balaa 19 heures ñu bàcc ko ñu bëgg def transfert de lecteur ñu jébaane leen balaa dina wër ñu bàcc leen ba mu nooy net wane ne nitu ñu jënd ñu ko xaalis dignité ak ngor dafa baax dignité bare almet la bu xasee tàkk dootul tàkk ti mukk bu xasee tàkk dootul tàkk ti mukk laa wax sëriñ yëmbal ah léegi xaw ma ndax dañ koy wàcc xaw ma day laajaat rek mais sëriñ yëmbal ah, on verra sëriñ yëmbal Amadou sëriñ yëmbal coalition Yewwi Askan Wi battre campagne de manière fort modeste mais avec conviction xam nga lan moo ci neexoon au gis nga c'est clair net et précis ne ay adversaire u Macky Sall lañ amuñu ay traître ay top yoo xam ne dañuy laqatu di dem ca guy ga ca ginnaaw di tëb di dugg ñeme ko nag fas n'a nag defante leer au moins Macky Sall ñu mais moom adversité bu ci am bu leer pour la démocratie nit ñi may leen nopp di leen dégg wi askan wi lañ wax askan wi leen woteel gëm nañ ne dañ leen yeewoon ndax nag mënuñoo nekk ci réew bo xam ne amul valeur amul éthique amul déontologie amul dara un régime boo xam ne lépp luy valeur amu fi c'est le contraire rek mais mention spéciale à Ousmane Sonko maa ngi ci doon waxtaan ak ren ne ma ne ko muna man naam ma ne ko ousmane loo ko bañ-bañ loo ko nangul ko njàmbaaram te parce que nak leader yépp lañuy féliciter ma ngi leen wax léegi khalifa sall ay de mboj limu daj jigen du man goor mais tay ji nga gis usman sonko il risque gros ay de mboj n'est pas candidat ay candidat khalifa sall n'est pas candidat non plus n'était pas candidat mais ousmane dem Ziguinchor ñatt yoon la ñew Dakar pour soutenir dem Ndar dem bour pour soutenir d'autres candidats ala <laughs> ñu daan wax ne du <laughs> gagné Ziguinchor non gagné wul Ziguinchor mom dafa mokkal Ziguinchor rubux gagné wu ana ñi daan wax ne du gagné Ziguinchor genn leen ñi ka daan wax ñep sen bon xol sen iñaan sen iñeñati mo leen daan waxe mais yàlla noppi na démb tey doog a ñëw yàlla noppi na démb tey doog a ñëw te il faut qu'on soit honnête et sincère xam nga man nee naa leen du man raay mbir mi violence ay dégg Doudou Ka di ko toomal Ousmane Sonko ma ne ko mais man li ma jaaxal Ousmane Sonko 2014 ba léegi mi ngi dem Ziguinchor musuñoo dégg violence te ba mu dem Ziguinchor amoon na ay adversaires ya fa nekkoon musuñoo dégg violence yow ba nga tàbbee ci mbir mi rek la violence jëli kon ku ñu bees simbir mbir mi am lu bees ci mbir ndax dernier jour de campagne caravane Benoît Sambou caravane Abdoulaye Baldé caravane Sonko daje nañ ci même béréb ñu saafante ree dem seen yoon xam nga xaatuñ ko ci kanam ci loolu moom mu bokkutoon sax moom du gagné c'est un musu ko def dara non moom gagné wul Ziguinchor dëkku dëbb ba mu mokk tous les centres de vote le raflé du ko dëbb ba mu mokk rubux te yamul ci jigéen soor yamul ci jigéen soor dafa tàllal tàllal di dem boole ci ñëw jàppale ay candidat ñu gañe kon gàcce nga la ma Ousmane Sonko takk na ci rip nag ci campagne mu neex leen mu di leen takk na rip ci campagne du gagné <laughs> ok non Sonko boolewul dara ak <laughs> wax quoi day ñëw rek fete ndeysaan ay amoon nag eh, xaw ko yërëm xaw ko yërëm quoi ma woo la ko mais may may ba gars du la du la du la du la du la gayee yooy sor la gayee de tama ëpp la buum tama du la ëppay buum mu ne ma <laughs> euh, à dix nga gis formalité lay doon formalité lay doon loolu la ma mu ne ma laa leen jox

mooy dañ la daan woo ci violence ci ci vote électoral bi pour toj élection yi fekk nit ñi ñooy tànn man Pape Alé faluma kenn man Pape Alé fal kenn sénégalais yi ñooy dugg ci mbañ gàcce gi vote fal ku leen neex fal ku leen neex bi ñu déglu ma sàmba du ñu déglu ma demba waaw léegi nag génie politique gu Macky Sall man damay dégg chaque mais Macky dafa mel ni gisoon na affaire yi ah gars qui seetlu leen benn Macky Sall pour la première fois je vis un Macky Sall moom position d'un président républicain qui donne l'impression d'être à équidistant de tous les camps déglu leen bu baax la mu wax Fatick ba leen ko déglu nee na Euh... Fatigue de il, il a campé sur les principes. On a reporté deux fois les élections locales dans le cadre du dialogue politique, mais le Sénégal a l'habitude de voter. Euh, donc, j'appelle pour que le sujet se passe normalement dans la sérénité, la transparence. Tegouti, que Benno Bokyaka remporte pratiquement toutes les localités. Non, non. Enfin, non, que le meilleur gagne. ah! xam nga dama ko doon wax xawa benn bokk yaakaar c'est vrai Wade bañ koy gagné 2009 coalition moo ëpp lu mu gagné ci ci ci collectivité locale xam naa ne benn bokk yaakaar argumentaire bu ñuy teg moo ñoo ëpp lu ñu gagné ci collectivité locale mais joxoon leen Dakar ak 19 communes d'arrondissement yi ñu weccoo ko liñ gagné yépp Dakar seen xol lañ ko def jox leen Dakar. commune d'arrondissement yi defe naa bi ñaar lañ ci lañ ci sauvé ñaar nga riigu ci digg capital te Dakar mooy Sénégal dañu waxante dëgg yeneen réew yi naam baax na trop nit ñaa ngi koy yeewoo di liggéey liggéey bu mucc ay mais nag quand même Dakar c'est autre chose président gis coalition bi ñu làbbali leen ba ñu nooy nepp ci ndaka te vingt heures jotu te vingt heures jotul laa wax de vingt heures mu gis ay ministre yoo xam ne bu leen tëjee ci bureau bu ñuy wax da ngay foog ne tubaab la tubaab wax ci bureau oui bonjour on est local parce que ça va se passer comme ça waay waay de Hein Il calme, je crois qu'on va mettre le plein, on va perdre du local. Ah oui. Je suis le directeur de la société. Nous avons un malet tout Khalis. Du coup, Boy, non, non. ok, mais TG, DG, dans la barre de fou, on gagne 50 000, 100 000. DG, il dafa dégg kenn ne ba dafa responsable <laughs> millions pourtant koñ alors nga gis ministre la république ñu humilier leen say société humilier mais Macky tu as l'occasion de que de se reconstituer de de non de de se réconcilier avec le peuple sénégalais Manam, dafa am lo xamne ne ci yow dina la ko wax tey ci ci say nit sénégalais dugg ñu ko arrogance insolence ñu len neex la ñuy mbiicoo ko mballu parce que tout simplement contrôler contrôlent les trucs te du ñu humilier et puis ngay jël nit ñoo xam ne kenn xamul man sama kër maam mi ngi tëngeej jàngee naa tëngeej tëngeej laa jàngee xam ko bu baax alors xam Ismaïla Madior Fall bu baax a baax a baax comme nekkee ministre laa doog xam ne Ismaïla Madior Fall il est de Rufisque il ne s'est jamais réclamé de Rufisque Fall surveillant mooy papaam lañ na wax li Abdoulaye Sadji Amadou Hott am na ko ne ma isa toogul trente deux ans ñëwul yëbbal boole ci nag nga ñëw nag jé dama ne xam ne takkal lay ndombe tànk nga ne cëpp na lay na tekki na dem sa gox boo xam ne vraiment mu soo fa revendiquer benn appartenance te nga taxaw di wax ne wooy man fii bokk Alors, président, les Sénégalais ont sanctionné des contre-valeurs. Hein? Ah? Banda Diop, taxaw Dakar moo ko faloon maanaam ci maqaama Khalifa Sall la nekkee maire Padoa gañe nañ ko sénégalais yi bëgguñu ay traître di transhumance de Pape Seck HLM parce que ñooñu ñëpp man def naa ñoom ak ay plateau ah def ñoom ay plateau Pape Seck bañ fi amee affaire u defe naa euh, benn centre commercial bu amoon litige invité woon naa ko benn samedi mag ñëw na di défendre Khalifa Ababacar Sall ba ñàkk doo kat tu trahis on te sanctionne les bugguñu ay contre valeur ay transhumance ñoom ñëpp war di nga ñi les sénégalais ont sanctionné Macky Sall mën na lu Macky def ban sanctionné ko <coughs> les sénégalais ont sanctionné Macky Sall soit mais là, le Macky def ban sanctionné ko ku def dara des sanctions, sanctionné positivement comme négativement bi sanction négative mais parce que tout simplement Macky Sall da gis naa pose première pierre de terre, de waaj BRT lu ne mu dugg ci ñu ne Macky Sall la ñu sanctionné oui Oui, les sénégalais xam nga dañu sox ils n'ont pas voté pour Oui mais ils ont sanctionné Macky nom de Dieu arrêtons arrêtons si on a sanctionné Macky kon dañ koy bëgg wax na ko ni nga yoree réew mi baaxul yaa ngi ko yore ci impunité xam lu tax gars yi jàpp nañu indi xaalis yëpp di ko campagne ay sàcc lañ te kii seen capot di Macky Sall du leen defal dara il fàtte na Parcelles Assainies benn novice en politique moo ñëw le gros poisson Musasi, Sy bi Macky Sall nappoon mu defal ko bagas bagage yu dia ibu, Assainies ana may bobo am ah, lu ba fa la bokku timit ties ña nga ci lew Leewtoo waaye li ma jot moom gars yi dañuy wax ne Babacar Diop moo a ville yeneen yi defe naa biram Souley ak xaw ma kan mais defe naa Idrissa Seck waxoon na bu ñu ko gagné cees mu bàyyi politique de en tant que xam nga Idrissa Seck moom xam yéene la may dóor moo ko génnelee loolu fasatuma yéeneeg fas naa yéeneeg xaw ma su dugal ma ci gaam yooyu alors ñun ñi nga xam ne saa su alerte di wax ci réew mi.

Macky sàll ba muy wut dañ ma doon wax pro Macky après pro Macky Macky sàll jàpp Khalifa sàll tëj ma trouvé ne injustice la may wax ñu ma pro Khalifa neewoon nañ ma fi pro Idi temps bu Wade jàppee kaso léegi ñuy pro ma daan leen sama yoon newu ci wax leen loolu li xew mooy lu jaaduwul ku koy cautionné ku ne naafiq nga li jaaduwul woon temps Ablaye Wade ñun ñëpp ñuy ubbi suñu gémmiñ di ko wax. waaye bu amee ci temps Macky Sall luñ ko wax lu tax Macky Sall daf ñu war a gën a gëm yàlla walla Macky Sall moom mooy kan ba duñu wax ak moom moom suñu la di gis nga lim daj pour doon président encore deuxième mandat bu nekkoon na mooy patron bi kay doy toog këram j'espère qu'il aura la lucidité

liste sëñ bi bulletin boobu lay jël ku d'accordul ak biltin boobu da ngay jël bulletin bu weex ne d'accorduma ci tey bulletin blanc yi ñoo gañe te gaw ne man xanaa dañoo contre bulletin wu sëñ bi déedéet dañoo bañaale Macky Sall bu ko bañaale bañaale coalition bi am lu leen naqadi ñu ne noonu lañ koy manifester kon suñu sëriñ ci war a am nañ ci jàngat nag xanaa Dan kat ah réew mi nan am luñ ci jàngat li ci xalif bi la woon te xalif bi def naa listam day jël ci famille yu ne dugal ba matal l'islam alors tey ana sëriñ ci waatoon nañ bi bi bi bi eh, candidat mooy gagné ana sëriñ ci waatoon loolu may laaj doomu ana ni tey ana sëriñ ci taxawon ne di way gañe nguur xanaa ñoom wedd yàlla lañ def parce que ñoom ñoo ñuy jàngal ne nguur yàllaa koy jox chaque jour ñu wax ko chaque jour ñu wax ko ñoom ñoo ñu wax kat yow na ci alquran la nekk saa bu président demee ñu wax ko waaw nga ne yàllaa koy joxe ba pare yow nga taxaw nangoo waat ne bii candidat mooy mooy gañ te boo leen ko defee la majeure partie xool leen dans l'histoire politique du Sénégal sëriñ ñu waat yépp yàlla dafa def le contraire te Sénégalais dañoo xippi di xool léegi sëriñ boobu di la waxtaan di la defal loolu amul benn problème àddina ni ngi koy jox ay saako ceeb yu baree bare lëkkaloo ak ay homme d'affaires yoo xam dañuy gagné ay marché état bi di ko compal di ko jox am na ay nit ñu nekk ci état bi di joxe di ko ñëw di ko jox adde yu duun ay millions buy voyager premier classe lay voyager kër gi mu dëkk néeg yëpp clim la jongoma mami tarfa ma sha allah ak leneen ak leneen ak leneen kon li may wax rek a ci nekk nañu bàyyi xel ci loolu xam ne sénégalais yi dañoo sonn dañoo tàyyi te dafa mel ni saa bu ñu taxawee waat sénégalais yi ne ok y a pas de kon gaañi li ma bëgg rek mooy nañ gën a góor gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax fàtte nag élection yi romb ñi yàlla def ñu fal leen ñu tàmbali liggéey bi buñ gàcceel ku ne ay xale yu ndaw ñoo fal teg ku ci affaire léegi nag li ci des xaw ma ndax euh, sa majesté Macky dina organiser législative bi parce que bu ximmalikoo ba pare ak i nitam

defal sa empreinte wanal sa bopp doonte yaa ngi ko doon wane sax avant kon ma ne la félicitation Serigne Mboup xam nga loolu dafa am lu muy wane dafa am loo xam ne jarul di ci rey sa bopp fulla ak fayda la Serigne Mboup am def li muy def kon gañ ma ngi lay di sant di leen gërëm yi moy ay wax yo xamna war nañ ko diss ak yow di sant ñepp nak di gërëm han ah, euh di wax ne yalla yalla def jamm ci rew mi yalla yalla wacce yiw ci rew mi kon di len di dajé inshallah ci benen live ci sen chaîne youtube dakar matin jeur ngeen jeuf